asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant encore parce que boo gisee salle bi tey da ngay xam ne ñi engagé ñoo fi nekk ñu am détermination ñoo fi nekk donc aw ma leen lu may def bu dul lu dul remercier leen seen taxawaay ak seen teewaay am nañu jóge ay kilomètres kilomètres Kolda kawlak Touba Kayar ñëw fekk si bis bi. lu dul xeexal Karim sa Wade jàppale doomu Abdoulaye Wade boobu pour mu ñibbi si Sénégal la plateforme pour le retour de Karim loolu moo ko tax a jóg parce que tey ñun mënuñu seetaan bàyyi Abdoulaye Wade ñu torturer ko di ko won métital Macky Sall waroon na am yërmande taxawu bàyyi Abdoulaye Wade moom mënul neexal bàyyi Abdoulaye Wade munul dab bànneexam na bàyyi Karim Meïssa Wade ñëw ci wetu baayam dab bànneexam parce que tey waajur bu ne ñaan na yàlla bu yeewoo gis taawam bu góor nekk ci wetam surtout bàyyi Abdoulaye Wade instant bi ak âge bu mu am tey doomam war na nekk ci wetam di ko épaulé la plateforme pour le retour de Karim dafa jóg nag taxaw temm pour xeexal Karim Meïssa Wade salfaañee akam ak yelleefam état Sénégal delloo ko ko le plus rapidement possible te dañuy wax Macky jeunesse la la am de li am Mali dina fi am parce que duñ ci ragal dara duñ ci ragal dara kon na delloo si xelam indi doomu Abdoulaye Wade tey Macky bu nekkee président yàlla ak Abdoulaye Wade feyul naar bi xoromam donc nag bëgg nañu suñu président ñibbisi le candidat du peuple l' espoir du Sénégal Abdou Karim Meïssa Wade mu ñibbisi Sénégal ñu delloo ko akam ay yelleefam ñi nga xam ne ñoo doon saytu li Karim Wade doon liggéey ci nguuru boppam saytu nañu ba sonn gisuñu dara. économie il faut apprendre à vivre avec le virus noonu la def ak monde bi il faut avoir à vivre le monde noonu la def sénégalais yi mooy le PDS le parti démocratique